mu yónneewaat doomam muy Baye Khalifa nga xam ne bi ñun ñëpp toogee gis ngeen ko mu ñëw te papaam moo ne ko bàyyi li ngay def yëpp nga ñëw loolu yëpp day wane fi ko mbir yi toll moo tax euh, alhamdulilah rabbil alamin di ñaan ñun ñëpp ñu sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ndax eh, li nga xam ni moom mooy télévision bi ñu nar a ubbi nii amul sikk ne amoon na bu yàgg waaye tey lañu ko yàlla teg ci suñ loxo moo tax ku ko fekkee rek war nga sant yàlla lu tax ma wax loolu mooy dafa bokkoon ci mbébét yi nga xam ne Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu daf ko yàgg denc ci xolam di ko dundee di ko misère di ko nelawee te xam na ne lu am la ba pare waaye xam na ne jamono mooy ñëw ba ba yàlla amal ko jamono boobu mooy lii moo tax ci kaw loolu bala maa dugg ci waxtaan wi damay nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi comme ni ma ko sëriñ Mahi Ibrahima Niass sante soo demee nga nuyul ma mbooleem xalif xalifa général bu nekk ci Sénégal nga wan leen ne ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk benn liggéey ñoo bokk benn jëmuwaay ñoo bokk benn yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo bokk benn téere muy alquran ñoo bokk benn kaaba gi muy suñ kaaba gi ci muy xibla ñoo bokk lépp ñoo bokk alquran kon dëgg-dëgg ànd boobu ànd bu yàlla tëral la ba pare pour ñu appliquer ko nag loolu lu yomb la war a nekk moo tax maa leen di ziare di leen ndokkat ci koor gi di leen nuyu soo demee nga nuyul ma leen ñoom ñëpp beneen bi mooy mu ne nag ma nuyul ki nga xam ne mooy président de la république bi nga xam ne moom la yàlla teg mu amee Sénégal di ko nuyu te suñ ko nuyoo nuyu nañ peuple bi yëpp comme moo leen présenté comme président di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi liggéey góor ñi ak jigéen ñi ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo taxaw di liggéey pour seen réew di liggéey pour le développement du Sénégal ñooñu ñëpp maa ngi leen di encourager di leen wax massa waaye di leen nuyu di ñaan yàlla yàlla oyofal leen en yi nga xam ne moom la leen en te yàlla ubbi mbooleem wërsëg yi saafara mbooleem jàngoro yi di si nuyu ki nga xam ne moom la président envoyé muy Pape Malick Ndour mi nga xam ne xam nañ fameem bu baax ñoom ñëpp dégg nga lim fi wax ñoom ñëpp ay taalibe lañ ci la juddu baayam yeeg maamam yëpp ñu ngi juddu ci nekk ay taalibe Cheikh Ibrahim tarbiya foofu daan dem Koosi di dem ba di liggéey ba ñëpp xam nañ taxawaay yooyu moo tax wax yi nga xam ne wax na ko fii dëgg-dëgg laa xarwa su waxee woon neneen lañuy jaaxal waaye dëgg-dëgg li dara bettuñu ci xam nañ ne sax li mu bëgg a wax yëpp waxul ko waaye sant yàlla rek di nuyu di gërëm Amadou Samb bi nga xam ne bras droit la woon ci xalifa Cheikh Ahmada Tijaan yi yàlla na ko yàlla gërëm rahmatullahi liggéeyal na ko bu baax am na expérience yoo xam ne yu bari am na ko ci nekk bi nga xam ne nekkoon na ko ak moom ba yàlla def sëriñ bi comme dafa nekk nit koo xam dafa am vision te bëggul di xatal dara bi mu ñëwee daf ko oo pour mu ñëw dimbalewante ak Cheikh Abdourahman ci liggéey bii nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk di nuyu Cheikh Abdourahman bu baax ndaw mi nga xam ne fonctionnaire la ci réew mi waaye muqaddam la ci pay bi te waxtu ne mu ngi wane mbëggeelam cofeelam ci famille Cheikh Ibrahima Niass te bu yàggut rek ci fan yi wane na ko parce que évité na xalifa bi moom mboolem ñi nekkoon ci firi alquran mi ci mbedd mi ak doomi bàyyi seti bàyyi ak taalibe yi ak muqaddam yépp ñu ñëw mu évité leen ndog lu lu yaatu boo xam ne keroog si seen si seen yi dëgg-dëgg caalit nañ ci bu baax ngir neexaayu ndogu li rek di wax ne yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla gërëm di nuyu maxtaar le soleil bi nga xam ne moo nekkoon euh, boo amewoon euh, micro bi micro central bi di présenté nekk journalist yàgg nag ci soleil di liggéeyal pays bi ba nga xam ne jamono bi nga xam ne pour génne lu jëm ci Baye dafa jafe man liggéey na ci ak man ay at yu bëri war na mat léegi fanweeri at su dee jegewu ko waaye yooyu yëpp moo ci daan dimbaliwante ak man yi ñu bëggoon a jàllale yëpp ci communication ñu koy jàllale ba yu ci bëri nit ñi jot ci kon dëgg-dëgg su ñëwee fii amee parole bi vraiment jox nañ ko ku ko ku ko mérité ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla gërëm di gërëm suñ suñ jarbaat Babacar ñaŋ bi nga xam ne moom dafay yàttal liggéeyam ba nga xam ne léeg-léeg day bokk ci ñun léeg-léeg mu rëcc dem bokk ci ñeneen taalibe yi rek di liggéey rek ci kayit yeeg ci xalaat yi te loolu yëpp xër ci pays bi rek moo ko wan léeg mu nga Sénégal léeg mu nga Europe mu nga Maroc yooyu yëpp waaye su demee ba ñëw rek dinañ indi résultat yoo xam ne daf lay ne dëgg-dëgg liggéeyal pays bi rek moom moo ko yëkkati woon moo tax ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Cheikh Aboubacar di gërëm muxadam yi fi teew yëpp di gërëm professeur yi seen wax yi ñëpp dégg nañ ko muy wax yu leer yoo xam ne xam-xam bu leer la yoo xam ne communication bi jàll na parce que comme li ñu wax communication dafa doon loo xam ne dafa am solo surtout nag ci jamono bi ñu nekk soo gisee Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci jamonoom kaset yi nga xam ne moo ci firi alquran moo ko doon enregistreel boppam ziyaare yi ak gàmm yi moo ko doon enregistreel boppam am na ci sax yoo xam ne dafa mujj yàqu mais suñ jotoon yëpp da nga dégg lu doy waar waaye nag ba léegi dafa créer ci nit ñi ci seeni xol ak seeni xel li mu daan wax yëpp dara manqué wu ci parce que yëpp yëpp dugal na ko ci biir taalibeem yi ak muqaddam yi moo tax fi mu ne leeri Cheikh Ibrahim dafa fees ci àddina bi ñëpp a ciy jot radiallahu anhu te créé woon na sax benn journal tuddee ko muslim friqiya le musulman d'Afrique créé woon na ko ba génn ci benn kii bi njëkk génn nuska yi ci njëkk a móol Mouhamadul yi moom la wax ne koy moom la formé moom la wax ne moom mooy directeur bi waa seetal jamono boobu ni mu yàggee bi mu créé journal bi mu ne Cheikh yi moom mooy directeur bi directeur boobu ñu génne benn journal ñu taxaw foog na jeex na mu jàllarbiku journal boobu mu soppali ko rajo ci sëriñ maax yi mooy xam nga ni démb mooy tey mais li fi nekkoon rek moo fi nekk kon sant rek moom moo ñu war moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax te xam ne dara demut fen ma ne àddina bi nag li tax communication am solo mooy dafa am ñaari group yu yu fi nekk jàkkaarloo ñi nga xam ne mooy xasbu seytaan ak xasbullah xayrul bariyati ak charul bariyati ñi gën ci ci ak ñi gën a yées ci mbindeef ñi gën a yées ci mbindeef nag dañoo toll ci jamono bi boo xam ne ñoo gën a bari wax ñoo gën a jël ay moyens ñoo gën a am jël itteel joxe loo xam ne du dara di ci sonn guddeeg bëccëg te suñ waxee ba wax ji jeex da ngay gis ne waxuñ dara suñ jëfee ba jëf yu jeex da ngay gis ne jëfuñ dara lu dul yàq rek loolu moo tax jamono bii nga xam ne télé bi ubbeeku na dëgg-dëgg te télé bi am na rôle bu baax bu mu boo xam ne jullit yëpp danañ ci jëriñu incha allah ma ne dafa am li tax communication am solo mooy temps yi dama toog dégg sëriñ yi dañ ànd ñu éviter woon ko pour projet yi nga xam ne mu ci boppam bi nga xam ne dafa nekk ci réew mi te réew mi am njiit mu ne moom il faut mu avertir borom